laa ilaaha illa laa faal laa ilaaha illa laa laa ilaaha illa laa laa ilaaha mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu waaye di ko ñaanali Serigne Amdi Fall moom sëñ Modou Mbenda mi nga xam ne moo jiite tey buntu kër Cheikh Ibra Fall waaye nag ñu sàkkuwaat it ay ñaan yoo xam ne kenn ku nekk fi nga toog mën nga ko wax ndànk boo jàngee faate jàng ñetti lixlaas lixlaas bu nekk ànd ak bisimilahi rahmaani rahim ñu yéene yool bi sunu jàmbaar ji sunu waajur wa doomi sëriñ Mbàkke Faal ja ki nga xam ne adduna bépp xam nañ ko ke kenn ko fàtte muy Cheikh Bassirou Fall alquran ñu ñaanal ko yàlla sunu borom mu dolli yërmande ak i xéwal ci moom ak rakkam yu baax ya ak magam ju baax ja sëriñ Aliou Fall mi nga xam ni moo ko wutu ginnaaw sëriñ Basiiru ñoom ñëpp ñu ñaan ci barka weer wi ñu nekk ak ndigal li saa borom yokku seeni daraja dolli yërmaande ki xéwal ak njéggal ci ñoom waaye yàggal fi seen rakk yu baax yi nga xam ne ñoo leen fi wutu ka ci jiitu mooy sëriñ Cheikh Fall moom sëriñ Mbacke Fall. nga xam ne tey moo toog ci buntu kër sëriñ Mbacke Fall yor liggéey ba la sëñ Aliou yoroon te sëñ yoroon ko tey sëñ Cheikh Cokka Fall moo ko yor ànd ko rakkam yëpp ànd ko ak mboolem njaboot gi di ñaanal sëriñ Ngunda moom sëñ Bassirou Fall alxuraan ak yàgg ak wér ba bii ko sëñ Bassirou Fall batale te ñëpp gisoon ko saa borom dolli aw fanam dolli kattanam dolli ak wéram ak mboolem njabootu sëñ Bassirou fa alxuraan gi ba fa ko sëñ Bass bàyyi woon mu yóbbu ko fu kawe njortam saa borom mën na ko yàlla ko def loolu la Serigne Cheikh Fall mii toog di Serigne Cheikh Soda jiital ci ay kàddoom bëgg ñëpp ñaanle ko ko fii ci jotaay bi ñu kenn ci njaboot gi la di ab taalibe baa bokk moom la bëgg a doon am mu nit doon muy sëñ Basiru Faal ku xam kër gi xam nga ko di rakk sëriñ bi di doomi sëriñ bi sëriñ Seex Soore nag moo ñëw tey bàyyi gam daan bàyyi di fekk sëñ Bas ca paalin ba saabaram dikka ko mu ñibbi àjjana doomam ju baax ji toog fi sëriñ Seex Soodo jug fas yéene ko fekk si fii ak lenn ci murid yi nga xam ni moom la ko saa borom booleel ñu toog nii wër ko tey di ñeent fan ci weeru koor bi waaye ndeka jekk ba weeru baraxle wi teroo ba fii ñu toog sëñ Seex Soodo di soññee ngir liggéey bi sëñ ba Cokke nu ci ay ndam mën a gën a dolli koo nu liggéey bi gën a yokkoo nu liggéey bi gën a taaroo ngir sëriñ Ngunda Fall am ndam waaye it ngir sëriñ Cheikh Cokka Fall gën a am ay ndam loola waral jataay bii ngeen gis mu mel ni taalibe yëpp sëñ ñu ngi nii teew waaye yéen rakkam yi mu bokkal it sëñ Bachir fa alxuraan yéen ngi nii teew Cheikh Abdou Akim a ngi nii dend ak sëriñ Abdou Fall moom sëñ Amdi Jëwriñ sëriñ Modou Fall moom sëñ Bassirou Fall alxuraan Cheikh Abdou Sakkoor Fall moom sëñ Bassirou Fall alxuraan sëriñ Abdou Aziz Fall moom sëñ Bara Mbacke sëriñ Bassirou Fall moom sëñ Assane Taalin ak mbooleem njabootu sëñ Bassirou Fall gi toog fii ci wetam sëñ Modou Aminta Fall moom sëñ Bassirou Fall alxuraan ak soppe yëpp waaye ak taalib yëpp. sëñ Cheikh nee na kon nee na asalaamaaleykum. nee na mi ngi sant bokk taalibe yi. di gërëm ñëpp. di ko tàmbalee ci rakkam yii. nee na ndax ay jàmbaar lan de. dox ndax dox rek lañ bëgg. dox it xam nag. ci loolu lañ leen toqi. ci loolu lañ leen toqi. nee na moo tax. lépp lu muy def. da leen ciy jiital. ndax loolu kat. li leen sëriñ bi boole woon nee kon sëñ Basiru sëñ Seex ne mi ngi leen sant baax di leen gërëm di sant it njabootu boppam ji ndax da leen ni du ma lëggéeyloo taalibi yi di leen bàyyi kon bu ëllëgee su ma leen fi bàyyee du ngeen tege ci aw yoon da ngeen di yaakaar ni lii nguur la ngeen di ko nguuroo. seex moom. nee na ca seex moom. du nguur du nguur de. sëriñ Saliou nee na. sëriñ Saliou Mbacke nee na. seex yi. ba sëriñ Touba di sàkk. liggéey moo taxoon mu sàkk leen. nee kon loolu ab armée kenn ku ci nekk. da ngaa war a dox. loolu la leen a tàggat. nee ci loolu la leen bëgg a tàggat. loolu la leen digal. loolu la leen digal. ba tax na. ba tax na. maa ngi leen sant ndax jaayante leen di digal. ndax mi ngi leen sant ndax jaayante gi mu leen digal de. ñu ngi koy def ñoom njabootu boppam gii ñu ngi koy def. dama leen di won ne. da leen di won rek ni. yéen ak taalibe yi rek yéen laa yemale. du ma teg doomi jàmbur. di bàyyi sama doom. la ca des. la ca des. mooy taalibe yi. nee na mënu leen a fay de yéen murid yi. ndax nee na yéen. da ngeen koo sagal de. waxuma sax jox gi. nee na waxuma sax jox gi. waaye melokaan yi. ak bëgg gi lu baax. ak bëgg gi lu baax. ak nangoo liggéey. ak nangoo liggéey gi. bokk seen i waajur. bokk fonk seeni i waajur. loolu na loolu. bu ngeen ci yemoon képp. sagal nañ sagal ngeen ko. léegi nag nee léegi nag. sant naa bu nee na mi ngi sant bu wér. ndax lépp lu mu bëgg ci sëriñ bi. bu tàbbee ci seeni i nopp. nee na mu ko bëggee rek. nee noonu ngeen koy defee. nee mi ngi leen sant bu baax. di leen gërëm di leen ñaanal xéewal yu dolliku ba lépp lu ngeen yéene ci yoon bi yéene ko ci njaboot gi ngeen man ko ci barkeb maam Cheikh Ibrahima Fall nee daal sant na de nee kon mën naa leen a jottali lim bi li fi daje tan daal di dem balaa guddi sëñ Bassirou Fall ni ko sama jubaax ji waxe sëñu Sambar jataay buñ toog dañuy seet ka nga xam ne moo ca mag ñu jiital ko kon murid yi toog di sa taalibe baay di sa taalibe maam bëgg a liggéey Cheikh Rafal sa maam ke sëñ Cheikh Soore mii di seen jëwriñ liggéey bi bii ñu nekk mu weeru koor wi ñoom day dajale soo soññante ci seen biir jaayante ci seen biir ni ko sëñ bi waxee ca njabootu boppam ngi jiitu ñoom ñii ñu topp ci gis ma mag ñiy wër ak ñiy ñëpp ak soxna yee lii juróom-ñaari million la yu teg téeméeri junni ak ñaar fukk ak junni ak juróom-ñett nga xam ne ñaar téeméeri dong doon ko bàyyi juróom-ñaari million ak téeméeri junni ak ñaar fukk ak junni ak juróom-ñett téeméer moom lañ boo fi fii ci kanamu sëñ Cheikh ni ko sunu yéene ëpp na lii sunu bëgg ëpp lii bu nu sañoon fii nga jëm kenn du la fa sëñ Aliou Ndiaye yi nii toog taxaw naa man fii léegi wax lu bari ci lépp nag bëgg moom mi mu am ndam waaye nag yéen di yéene arme bi yéene mbubbam yéen lay waaje yéen lay wàllu kon fii ngeen toll ren xam ngeen ko ndax xam ngeen fa ngeen toll woon daaw yokk ngeen ko ba ñuy yokk ngeen ko jaajuwaat leen rek laxasuwaat jëm ca kanam lii kat sëñ Cheikh mooy wujje sëñ Moustapha nee na wujje bonul wujje ci lu bon moo bon waaye li gis sa mbokkum taali bi muy def lu baax nga fas yéene koo roy ba romb ko loolu ku ko sañoon moom ngay man ku sañoon moom ngay def loolu mooy mooy kujje gi fas yéene leen rek ba bu ko kenn daan te loolu yéen ko ko man kër yii ak oto yi ak daaba yi fi koy bàyyi waaye lii de raw na du maxe du réer du rab du jaawaloo kenn du ku sàcc kenn ku nekk ci ñun nag mbub mi nga sol ñëw bàyyi nga ay mbubb ca gaal ga waaye bu neexoon suñu borom bala ñoo weññeeku dellu mu def ko ab dóom jëf ji nag sëñ bi jubluwu ci weer ko waaye ko nit mu jar ko ndax sëñ Bassirou Fall alxuraan sa waajur wa moo waxoon sëñ Moussa Mbar lii ngeen def addi ji sëriñ bi di yóbbu dee ko bind ngir ku ci bokk ca war caa joxe ca joxe woo ngir ñi ko joxe woon nag ca xamuñu fa addi ji jëm kon réew mi ñu toog ak bitim réew képp koo xam ne faboon nga sa addiye jaar ko ci sëñ Cheikh Soda addi jaa ngi juróom-ñaari million ak téeméer junne ñaar fukk ak junni ak juróom-ñett téeméer. waaw li ma ci jublu. na loolu lim ci jublu nag. lii kenn du ko jox nit. kenn du ko jox nit. mu di ko nëbbu. loolu ndax loolu day yàq lu bari jubluwu ci àdduna nee na jubluwu ci àdduna jubluwu ci ak bëgg àdduna jubluwu ci bëggumu mu tasaaroo ñi ma koy jox waaye nag ñi ko doon jox dina leen won fam ko jëmee nee loolu rek la jublu ci jataay bi nee jërë ngeen jëf إلى هذا Cheikh Modou Fallou Fall yaa mat boroom laa ilaaha illallah Cheikh Modou Fallou Fall yaa mat boroom laa ilaaha illallah Cheikh Modou Fallou Fall yaa mat boroom mat boroom Fall day boroom Cheikh Modou Fallou Fall na lam la waxoon rek Fall. loo ma gëj na loo ko gëj gëj a gis. xamal ni ci loola la nekk. bis ba mu na bis ba mu lay jébbal boppam. lam la waxoon. adduna du yàgg. ba mu dellu ca gannaaw. kon nag. nee na Fall mi ngi sant rek. di gërëm bu baax. li mu gën a bëgg nag. na li mu gën a bëgg nag. nee na nga ñaanal ko ñii nga xam ne yàlla da koo booleeg ñoom. ndax lépp loo xam ne sant nga ko ko. danañ ko def. nam ko bëggee nag. te dara du ca des. kon nag Fall. jàppale leen. ñaanal nu. nu am xéewal. ba li ñu yéene ci njaboot gi. yéene ko ci moom mu jëmmam ji. ñu man ko. ndax bañaluñ ko dara de. loolu daal faal. daanaka mooy wax ji. di la leeral nag. di la leeral nag. ni la gëj nañ fi. ni la gëj nañ fi. waaye. waaye. danoo dox doxinu sëñ Abdou Lahad wa. ndax daa waxoon ne. ndax daa waxoon ne. yi baax yëpp. yi baax yëpp. da koo takk def ko aw say. say wa nag. nee na say wa nag. kenn attanu ko. da nga cay rocceeg mat. da mat. di ko lang langee. ku la gis xamee moom. ku la gis xamee moom. bu yàggee. bu yàggee. say yëpp fekk si la. say yëpp fekk si la. nun nag faal. nun sunu say. sunu mooy koor gi. mooy koor gi. koor daal. koor gi daal. lan fas yéene. fas yéene. di ko lëggéeyal. di ko lëggéeyal. ndax li ci des. ndax li ci des. dafa jege. dafa jege. daa mel ko lool. daa mel ne tàmmuñu ko lool. moo tax ñu bëgg. moo tax ñu bëgg. suñu liggéey bépp. suñu liggéey bépp. ñu joor ko ci koor gi rek. ba bu ñëwee rek. li nga bëgg faal. nga mën a koo am. li ci des. li ci des. boo nu gisutit. boo nu gisutit. xamal ni foofu rek la nekk. kon nag faal nag mu ñaanal bu baax. bu nu sañoon nag. bu sañoon nag. lépp loo nekk. lépp loo nekk. noo cay man ñaanal nu rek. ñaanal nu rek. ñaanal nu ndax loolu mooy ak bëggam moom. nee na mi ngi sant bu baax. di la ñaanal nga yàgg fi. ñu yàgg la fee fekk. yàgg laa jëfal. nee na loolu mu la wax daal. moom moo nekk ci moom. jërëjëf Fall. mbokk yi sëriñ baa ngi nuyoo. sëriñ Gonda Fall mu sëñ Basiru Fall alxuraan. nee na asalaamualeykum. nee mi ngi nuyu bokki taalibe yi fi teew. teg ko ci loxol fab nuyoo bi teg ko ci loxol Serigne Cheikh Fall mii. mu jaataleel ko ci mboolem taalibe yëpp. sëñ bi ñu ngi jéggul waaw. sëñ Cheikh nee na mi ngi tuub nag. nee mi ngi tuub nag ci kàddu yi di nuru lum dog. nee mi ngi ci tuub bu baax nag. liggéey bi nee liggéey bi. andi nañ ko na ko de. juróom mu doon juróom benn million. moom la ko bokk taalibe yi dajaleel. ñu indil la ko. ñu indil la ko. te yeesal sunu njëbbal. nag sunu njëbbal ci yow. te dellu dem waajiwaat. juróom million la. juróom benn million la. ñoom bokki taalibe yi ñoo ko dajale. ñoom bokki taalibe yi ñoo ko dajale. wax gi nag. nee na wax gi nag. moom. moom. nee na du ko bañ de. ndax jëf buñ ko rusut a joxe. buñ a joxe. na jërul nëbbu. nee loolu rek la ci jublu. leeralal murit yi mu àndal seenu njàmbaar. ak seen pas-pas. nee loolu rek la ci jublu. nee kon Fall mi ngi sant bu baax. nee mi ngi jéggulu dagg gi. Hmm. waaye kàddu yéen la sa kàddu mooy kàddoom. Hmm. dañ kaa sof rek. Hmm. dégg ko baax. nee na dégg na lu baax sëñ Cheikh. kon ngi jaarale nee kon nuyoo taalibe mi ngi ko jaarale ci sëñ Cheikh Fall. mu jàllale ko ci ñoom ñëpp. mu jàllale yi nga xam ne ñoo ànd ak ñoom. ak soxna yi nga xam ne ñoo ànd ñoom. ci sant nag cant goo xam ne. nee mu ci sant nag cant goo xam ni. sunu xol bii lañ ko tibbee. nee ci xolam bii la ko tibbee. ndax kër gii. ndax kër gii. sama kër moomu ko. nee du këram moomu ko de.

sëñ bi nee nii nga doxee ci kër gi. moom moom moom moom nii rek la. nee na Fall nii nga doxe nii rek la. ndax boo doon yàq. ndax boo doon ab yàq. doo doxee nii. nga doxe te nii nga doxee. te nii nga doxee sëñ Cheikh Soda. ku ne xam na ni. kenn ku ne xam na ni. ak defar la ci kër gi. ak defar la ci kër gi. ci kër gi man mënu ma koo defar. ca kër gi sëñ Ngounda nee na moom ci boppam mënu koo defar. yéen nag yéen a mën a defar seen kër baay yéen nag yéen a mën a defar seen kër baay gi. yéen a ko mën a dara jaal. yéen ko mën a dara jaal. yéen a ko mën a yéen a ko mën a fullaal. dayoo bi kër gi war a am. dayoo bi kër gi war a am. ca borom kër gi bàyyi woon ko fi. borom kër gi bàyyi woon ko fi. te kenn ku nekk xamoon aw doxinam. te kenn ku nekk xamoon aw doxinam. ci digganteem ak maam Cheikh Ibrahima Fall. doxin woowee donc moom nga fab. nee na doxin woowee sëñ Cheikh sooda moom nga fab. loolu moo tax. nee loolu moo tax. sant naa bu baax. mi ngi lay sant bu baax. ndax kër gi kët ndax kër gi kët sëñ bi dafee bàyyi waar wu yaatu sëñ bi dafee bàyyi waar wu yaatu ci digganteem ak sëriñ bi ci digganteem ak sëriñ bi digganteem ak ay bokkam digganteem ak ay bokkam digganteem ak xarit yi digganteem ak xarit yi digganteem néew doole yi digganteem ak néew doole yi muy waaru yaatu lool muy yaatu lool te mu ne su ko ñàkk a bay te mu ne su ko ñàkk bay waaye xam gi nga xam loolu nag waaye nag xam gi nga xam loolu yow moo tax nga doxee nii moo tax nga dox doxin wii nga dox. ba tax na man dara agsiwu ci man. nee na ba tax na moom mii nga xam ne mooy seen kilifa dara agsiwul ci moom. lépp damaa tiim rek. lépp da koo tiim. ba fi sëñ bi jógee ba ba fi Seex bàyyi koo ba tey. lenn lu fi jaar. lenn lu fi jaar. ma yëg ko. mu yëg ko. ci sama bopp bii. ci boppam bii. nee na amul. te yéen a dox sama diggante ak te yéen a dox sama diggante ak bu ngeen ko baax bu ngeen ko deful woon. waaye bu ngeen ko deful woon. mën naa mën naa agsi nag. mën naa agsi nag de. waaye dox ngeen sama diggante woon waaye dox ngeen digganteem ak coono yëpp. kon li fi sëñ bi bàyyi woon. woon. jàngaloon na ko. jàngaloon na ñu ca. ñu àndoon koog moom. ñu àndoon koog moom. kon loolu day mel ni bindu wu mokk la. kon loolu day mel ni bindu wu mokk la. kon nee na sant bu baax. kon nee na sëñ Cheikh mi ngi sant bu baax. fii daal. fii. moom ma koo defar. day mënu koo defar. yéen rek ko mën yéen rek yéen ko mën a defar. seen alal la fi nekk. seen alal la fi nekk. kër gi seen kër. bi ngeen ko xamee nag. bi ngeen ko xamee nag. ba àndeeg man ci nuun yii. ba àndeeg man ci nuun yii. yéen njaboot yëpp. yéen njaboot yëpp. loola moom na moom. nee loolu moom noppal na ko lool. ndax bu amul woon. ndax bu amul woon. damay rek. day sonn rek. wala coow li bari. wala coow li bari. te loolu lépp. dox ngeen digganteem. ngeen digganteem ak loola. kon dañuy santaat rek. kon nee na mi ngi santaat. ñu ngi sant bu baax nag. sëñ Cheikh nag. ñu ngi lay beral ak cant. waaw sant bu baax rek. nee mi ngi lay sant bu baax. di la xamal ni di la xamal ni it. moom la ma la waxoon rek. nee lam la waxoon moom mii. moo nekk ci man. nee loola rek moo nekk ci moom. rus na maa wax ak nit. rus na maa wax ak nit. loo xam ne bu ëllëgee loo xam ne bu ëllëgee ma dellu ginnaaw. kon nee kon daa bëgg képp ku ko xam moom sëñ Ngunda. ni nga ni nga ko xamee. moom ne moom noona rek lay demee. yàlla danoo boole démb. nee na yéen nag saa borom di leen boole woon démb. ci loo xam ne waxtu wu ne ma biral la ko. ci loo xam ne waxtu wu nekk mu di ko biral. te loolu yoonu kenn newu ci. te loolu yoonu kenn nekku ci. sama rek. sama diggante yow rek la. dund nañ ko ma ak yow. dund nañ ko man ak yow. dundin woo xam ni. dundin woo kenn yoonu kenn nekku ci woon. loolu sama diggante yow la. loolu xam nga ko xam ne loolu xam nga ko moom xam na ko. kon loolu santaan loolu boo dellu si waatee. kon nee loolu boo dellu si waatee. te te te loola dara tebbiwu ko ci. te loola dara tebbiwu ko ca. te bis bu set muy gën te bis bu set nga koy gën a yeesalaat. moom sant nañ loolu moom sant na ci bu baax a baax. kon ñoo ngi sant nag. kon nee mi ngi sant nag. bokki taalib yi nga xam ni ñoom ñëpp dañoo boot ci sa ginnaaw. lii nga def kat. lii nga def kat. buñ la seetaanoon doo ko def. buñ la seetaanoon doo ko def. waaye li gën cëb waaye li gën cëb ànd. mooy ànd ci yàlla tax. mooy ànd ci yàlla tax. te bañ a warante. te bañ a warante. ñii kat. ñii kat. wax dëgg yàlla jàmbaar wax dëgg yàlla jàmbaar lañu. ndax nii ñu dikkee. ndax nii ak ni dajaloo fii. ak ni ñu dajaloo fii. pas-pas rek la. pas-pas rek la. boo ci jëlee pëstéef. yoon yi nag kat boo ci jëlee pëstéef. dara du fa des. dara du fa jamono ji neexul. jamono ji neexul de. ne xam na ko. kenn ku nekk xam nga ko. lii nga fi indi sax. lii nga fi indi sax. boo xalaat nu ko dajalee. boo xalaat nee na moom buy xalaat nu ko gars yi def ba dajale ko. da lay jaaxal. nee dina ko jaaxal. waaye yoon wi attan na lépp. nag attan lépp sëñ Seex. daa doon lu nangu. nee daa doon lu nangu. lu ñu nangu nag. ku ca ne ku ca nekk ca ne ca kanam ca nekk ca kanam nangu gi rek ca am solo nangu gi rek ca am solo boo nangoo rek nee boo nangoo da lay tiim tiim waaye du agsi waaye du agsi ndax ñaar ñoo ñee ko séqoon ndax ñaar ñoo ñee ko séqoon muy Sëriñ Touba muy Sëriñ Touba ak maam Cheikh Ibrahima ak maam Cheikh Ibrahima Fall naxuñu nit ñi naxuñu woon nit ñi ndax kenn koo xam ni ndax kenn koo xam ni jox nga leen sa bopp jox nga leen sa bopp te muy dëgg ci yow te muy ci yow da nga ci xam dara da nga xam dara kenn ku ne nag cib taalibe kenn ku nekk cib taalibe war nga am fulla ju toll war nga am fulla ju toll ni nag li nga nekk li nga nekk nga cay natt sa bopp saa. nga cay natt sa bopp saa nekk. dana tax nga xam ci loo xam ni. kenn du la ko xamal. kenn du la ko xamal. yaa koy xamal sa bopp. yaa koy xamal sa bopp. loolu ku ne. kenn ku ne. war nga am fulla jooju. war nga am fulla jooju. ci li ngay topp. ci li ngay topp. ba xamal ci sa bopp loo xam ne. ba xamal bopp loo xam ni. du loolu kenn di wax. du loolu kenn lu lay wax. loolu taalibi bu ne. loolu taalibi bu nekk. war na caa natt boppam. war na caa natt boppam. nee na yéen ñii nag. nattu ngeen seen bopp. nattu ngeen seen bopp de. ci ci loolu. ci loolu. saa yu ngeen fi dikkee. li ngeen fi indi. li ngeen fi indi. dana dana dana xaw a ñaar la la la la ko doon. waaye dellu gannaaw nee dina xaw ñaar la ngeen joxe woon daaw. waaye mukk du deltu ginnaaw. kon loolu. nee kon loolu. natt sa bopp la natt sa bopp la. kon maa ngi leen di ñaanal baax. kon nee na nag moom sëñ Ngoné mi ngi leen di ñaanal. bu baax. te di leen xamal ni. te di leen xamal ni. lu baax lu baax. dafa yombul. dafa yombul de. xaw a dee rek koy maye. xaw a dee rek moo koy maye. ñi nga xam ni. ñi nga xam ni. dañu fee nekkoon. dañ fee nekkoon. te doon wut ngërëmul yàlla. te doon wut ngërëmul yàlla. xaw a dee rek lañ def. xaw a dee rek lañ def. la nga xam ni. la nga xam ni. moom la ni suñu borom fayee ci àdduna. moom la ni suñu fayee ci àdduna. biñ ciy jot. biñ ciy jot. booba soxlaatuñ ko. booba soxlaatuñ ko. loolu yàlla mel noonu. loolu yàlla suñu borom moo mel noonu. yàlla dafa wéet. yàlla daa wéet. wéetaay nga woo yoo xam ni. wéetaay nga woo xam ni. mu dimbaliwul. ku mu doo ko a jege doo ko mën a jege fenn doo a jege fenn doo ko mën a jege fenn sëriñ lam daa wax ci njaareem rek lam daan wax ci njaareem ku la xamal yàlla noppal na la waaye ku la xamal adduna waaye ku la xamal adduna sonal na la sonal na la kon lii sunub coono kon lii sunub coono mooy addina rek mooy addina rek addina mii nag addina mii nag li ci baax li ci baax bàyyee ko ba bàyyee ko sun borom mi ko bàyyee ko sun borom mi ko bind te lim ñu ci digal nag te lim ñu digal ci adduna ñu fas yéene def loola ñu ko defee nag buñ ko defee rek mooy mooy jox suñu diggante coono yëpp. coono yi ak coono yi. bu ñu jàppee adduna. bu ñu jàppee adduna. mboolem taalibe yi mboolem taalibe nag. saa borom defal leen ak yokk. saa defal leen kartan. defal dolli seen barke. dolli seen barke. dolli seen ci barke barkeb sëriñ bi maa ngi leen di ñaanal bu kon nee kon mi ngi leen di ñaanal bu baax murid yi di ñaanal soxna yi nga xam ne di ñaanal soxna yi xam ne ñoo nekk ci seen ginnaaw ñoom itam ñayi xare lañu ñuy soxla daba ngoom ñoom ñoom ñëpp ñu ngi ni toog ay ñayi xare lañu ñayi xare lañu yoo xam ne foo geesoo gis leen yoo xam ne foo geesoo gis leen boo laajee ñu jox la boo laajee ñu jox la kon loolu kon loolu yàlla moo leen ko cërale yàlla moo leen ko cërale moom seenu cër la. waaye na gën a góorgóorlu. waaye a ci seen borom kër yi. ci seen borom bu baax a baax. te sàkku barke. te sàkku barke rek. barke moom dañ koy sàkku. yàlla moom. am na fulla ju nii. boo demoon ba ca detti ndeer ba. nga waxanteeg moom ci moom. te muy dëgg. te nga di fa jug. fala lay fekk ak la nga bëgg. kon xam yàlla rek a baax. bàyyi àdduna rek a baax. soo ko bàyyee nag soo ko bàyyee te xam yàlla te xam yàlla wut ko ci boppam loo bëgg loo bëgg mooy dox sa digganteeg loola kon sëriñ Cheikh sant nañ sant na baax. di sant njaboot gépp. di sant njaboot gépp. te di sant na yow. di sant it sama rakki bopp na di sant it rakki boppam yii nga àndal. nga xam yaa ànd ak ñoom. nga xam ne yaa ànd ak ñoom. waxtu wu ne. wu nekk. yaa ngi waxtaan ak ñoom. yaa ngi waxtaan ak ñoom. di leen xiirtal ci kër gi. leen xiirtal ci kër gi. ba ndigal lu mën a jot lu ne. ba lu mën a jot lu yaa nga cay wax ak yaa nga cay wax ak ñoom. kon kër gi. kon kër gi. lim lay wax rek yéen a ko mën a defar a a defar. waaye du moom mii. su ngeen ko defee rek mu noppal ko. nii nga def nag. noonu dong moo koy noppal. waaye lu dul loolu. leneen rek ka fi ne. kon nee na ñoo ngi sant baax. kër gi daal nii ngeen koy doxalee. nee moo koy defar de. sëñ bi daal naalu yu fi bàyyi. woon. yaatu na lool. te koy doxal moom ñoo ko war a dox. kon nag ndokk bi ngeen ko xamee rek. seen bopp ñee jërë ngeen jëf sant nañ ñëpp taalibe yëpp ñee jërë ngeen jëf liggéey ba liggéey baa noonu mu jox la juróom benn million la mu riyee ko teg mu ñëw teg ko ci sa loxo fas yéene ànd yow adduna mi ñu ne ak àllaaxira gën jëm lii kat musu war a jox sa waajur wa kon li wax sa diggante yow dëgg la mm. képp ku naan su ma gisee sama baay gis sa taaw baay ci la nga yéene ko bu sa baay ko defal waxoo ko nag da koo jëf yaa ma wax maa yow ak moom yaa ko ni sëñ Gunda boo taxawee fi sëñ ba taxawoon loo bëgg ma def ko foo xëcc dina dina fekk loo song dinaa ko daan fa la ilaha illallah